waaw projet Exactement. projet bi euh, juróomi ponk la mais dama leen di ñaan balaa ma ci wax muy génn ma wax ceeg ñi ma ko seqal ba pare projet bi man maa ko bind maa ko xalaat yaakaar ni moo gën ci université bi ma proposé ko euh, autorité yi ñu waxtaan ci ba ñu jàpp ni projet bu baax la waaye projet bi man dong mënuma ko doxal man ak ñiy liggéey ci université bi ñi fiy xëy ñi fiy gont ñi fiy jàngee ñoo koy doxal mënuma xëy di wax projet bi ci biti te waxtaanuma ci ak ñom ba paré donc projet bi pour le moment pré projet lañ ko mëna tuddé ndax man dong mako xalat xalaat tax bi may jéxal ma ni ay waxtaan yu yaatu dana ko sék ci fan yu néew pour liñuy def liñuy wax stabiliser projet bi manam déggo ak ñëpp ci liñu wara def kan moko wara def ak nan lañ ko wara défé ak yeen résultat yeen lañ ci xaar bu boba ñun ñëpp ñu sumbu ñu sumbu ci liggéey bi université bi jëm kanam waaw xam nga université bi yàlla dafa def ñu ngi doog am ay infrastructure yu université bi momal boppam ñuy remercier son excellence monsieur le président mi ko ñëw inauguré fan yi les passé waaye université bi ba ñuy mbëbët infrastructure yi ak bañ koy jébbal ay at yu bare bare bare dañ fay jaar loolu dafa andi ni manam lañ yaakaaroon ci université bi xeyna tay université bi romb motax infrastructure yi naw newna mais dañ koy japp ak suñu fukki loxo ndax amuñu leneen di talal tamit suñu loxo autorité ñu jàppale ñu lépp lu ñu ci université bi mu nekk mbirum tabax mu nekk mbirum organisation mu nekk mbirum euh, avancement ci ñi fi liggéey ñu ci ba ñu ko ak jamm ak salam wa xam nga université dafa nek fo xamanteni ñi fay nek di liggey ñepp yalla dafa def ay borom xam-xam lañu macha allah boo ci jëlé étudiant yi ñu ñepp am nañ bac bo ci jëlé personnel administratif ñepp am nañ bac ba am yenen diplôme bo jëlé enseignant yi waxi nopi dama japp nak ni nit boko bëggalé dara fo nga koy wax fo manam boko dara fo ngeen ci waxtaan di ci déggu lolu man mom la tuddé une gouvernance participative pour une université de métier au service du développement du Sénégal gouvernance participative foo que dégg nag doxal yow dong te ñi ngay doxal ñi ngay doxalal ak ñi nga ko doxalando a doxalandoo déggoowu donc bu fekkente ni waxtaan nañu bu juboo ci cadre ci li ñu war def ba mu des jëf dong yaakar na ni ciow du am la suite c'est c'est d'appeler toute la communauté à se mettre autour de notre modeste personne pour mener à bien cette université nous allons inviter dans euh, les prochains jours toute la communauté à de larges échanges autour de notre projet de gouvernance qui s'appelle une gouvernance participative pour une université de métier au service du développement du Sénégal. Donc, une fois que nous l'aurons stabilisé, nous reviendrons pour le partager avec euh, la communauté nationale à travers euh, vos différents organes de presse et nous allons nous mettre au travail dans les meilleurs délais. En fait, j'ai, euh, après ma formation, j'ai fait une carrière dans le privé avant de retrouver l'université en février 2010, où j'ai eu à occuper toutes les fonctions administratives à l'université, où j'ai eu à occuper toutes les fonctions syndicales à l'université, où j'ai siégé dans tous les organes de gouvernance de l'université depuis plus d'une dizaine d'années. Donc il est vrai que c'est une université que je connais et que j'ai aidé à bâtir et à faire grandir. C'est vrai que l'espoir est grand, mais nous prions le Seigneur pour qu'il nous accompagne, pour que nous ne décevions pas. Toujours, une université en chantier, mais comme je l'ai dit, euh, les chantiers ne finiront pas. Donc aujourd'hui, nous avons réceptionné une partie de nos infrastructures, mais il se trouve que nous en demanderons encore davantage, puisque nous voulons faire de cette université une université de référence. Et pour cela, il nous faudra encore avoir d'autres infrastructures. Donc, les chantiers ne finiront pas, que ce soit des chantiers d'infrastructures, des chantiers d'organisation, de développement ou bien de méthodes de travail. Le climat social également Le climat social, pour moi, il est le résultat d'une large concertation. Puisqu'à l'université, nous avons la chance d'avoir que des intellectuels. Les étudiants ont au moins le bac, le personnel administratif, le bac plus des diplômes, le personnel enseignant, n'en parlons pas. Je pense que si nous, si nous privilégions le dialogue et la concertation, quelle que soit notre bonne volonté, si nous, si nous arrivons à accueillir l'adhésion de la communauté, sa mise en œuvre ne devrait pas poser de problème. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, l'université euh, ne peut aller de l'avant dans un climat euh, délétère ou dans un climat euh, de tiraillement. Donc l'apaisement est une nécessité pour que les gens se mettent à l'essentiel, c'est-à-dire au travail et au développement de cette université.